ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوالي أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى وأصلح عن أمة خير مرسلين وفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم وارد بهم واغفر لهم واجعلني يا رب من أعظم العباد أن لك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة لمن نصبوا ومن جوى ومن غرام ووصبوا وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاد مسلمين ومد فعل عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اقتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفبيع خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمتابعة ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنى بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا كالامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العذر واليسر على توالي وليجد فيك بعلم ينفع وعرفات السيد بقلب يخشع ولي في دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وحاسب لك نفس تدرك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرعة قاد حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخلني جميعا في مكنون غيبك واهدمنا عن الفتون وعن شرار القلق والرزايا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والزهد والورع في الدهور الله أكبر ودار سنة ومنجا من بدعا وجعلوا دأبا مكان التعلم وموضع الفكرة والتفهم fii li fi nekkoon ak li fi nekk tey bariwul ñu ko wuute donte am na waaye bari na ñu fekk ñaar yëpp at yu néew ci ginnaaw rek bokkoon na pawukaay bi gën a rëy ci gox bi ñu nekk muy Mbàkke ak Touba waaye ndekete da sunu borom waxoon ci alquran rek ne lépp may borom te lool mooy li lu mu jëlagul ak lu mu jël rek moo fi am waaye fii kenn ku ne xam na ne la fi nekkoon ak li fi nekk tey wuute na kon dafa dellusiwaat rek ci boromam niñ ko mën a waxee noonu waaye yàlla du ñàkk dara ba koy amaat waaye waxin la jëmm ji ko def nag te ji bokk ci ji mujj ndéegun yàlla na ubbi yeneen yu bare bare bare bare bare te ñu fekk kenn ku nekk xam na liggéeyam ñu bari nag xam nañ ko ci ubbi juma ak waaye lu baax la waaye du nekkul ci loolu rek ay junni junni junni junni nit yoo xam ne sunu borom dogal na seenug dund ci wàllu lu ñuy xéwloo ak seenug wér-gu-yaram ak seenug yar lépp suñu borom sama la ko jaarale te yàlla nga koy dimbale ba bi ñu ñàkk bi gisatul suñu yaakaar ja tey ak ëllëg ba léegi ma nga ca loolu te dara delluwu ci ginnaaw lépp dafa demaat ci kanam. moom defar gi ni muy ni muy nuru lu yomb ci moom am ku ko jiite gën a yomb ndax am jàngale moo jiitu tabax tabaxi jumaam moo tax moo tax loolu moom du doon jafe waaye daal waa kër gi moom bari nañu ko ci man ci ndaw ci diggu doom ak ci mag moo tax loolu moom mooy xam kam ko koy def comme nii rek dem nañ bay taxawal door a xam ne sëñ Moustapha moo koy def donte nag daan na def yi ci des bi ñuy xëy xaw ma ne woon ni moo koy jiite waaye saa ne rek bu ki koy def loo bu ñëwee laaxar walay doon ñëpp xam ne moo a mën a defaroon nañ ko ba noppi waaye moo ñëw soppiwaat ko changé waat ko bañ defaraat ko moom dëppal ñu waaye moom comme mën a jox yaa koy yaa koy waaye Diop moom entrepreneur boobu moom moo yor liggéey bépp moom waaye la koy defaral daal ci moom lay jóge <laughs> moom moom moom moom xam na ni nit ñi boo bañee am lu la naqari moom koo ko mën a jox yaa koy yoral sa bopp boo mutul kàttan def gi tamit nga koy xool mooy mooy waar bu ca mbagg wàccee na ci bët tege ngay faral di wax lu bari ala muhammadin wasilati laka wali akun alxitaami indaka nadri bi salaata li saxaaba an alihi wa habli al ijaaba ya xayra dayfin ataa والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا